boo gisee suñuy tàggatoo ñu koy jëme ci président mooy ndey ji réew lu yàqu ñu ne moo ko yàq lu defer ñu ne ñoo ko defer mm-hmm. na fexe muy deferu rek mm-hmm. àdduna yàggul àdduna yàggul àdduna ñetti fan la démb bërki démb suba yàggul lu yàggul nag dañ ci dawale xel moo tax daal na am xel rek mooy yu bëree bëree bëree bëri man daal loolu laa koy ñaan oto daal boo ko yoree muy daw alerte bu métti benn pëna ba toj te yaay chauffeur téyel bu dëgër téyel bu dëgër bul geesu bul fayu bul weerante parce que li nga téye moo dëgër fexeel ba bu oto bi laa suuf loolu mooy wàllu président di ko ko jox na koy jël rek na ko jël léegi mu jeex moom bu fi doon def miilaa dafay jeex léegi mu jeexal miilaa bu ko fi amee day jeexal te kuy jeexal day rafetal dafay rafetal waaye ñu wàññi ah mbugal mi nañ wàññi mbugal mi rek ndax itam diw àndul ak man rek naa ko mbugal ah du noonu ku mel ni bugaan mii di ndaw di xalel jàmbaar Youssou Ndour mel noonu El Hadj ñuñ nga xam ne yaa leen waroon óotal liggéey ñépp a ngi eh, reyante di xare ku ne jël nga mat lu mat lan cent personnes wala boo mu jege ko nga di leen fay ñooñ boo tëjee seen compte fuñ jëm lu mën a xew lu mën a xew nañu ko waxtaane nañ ko waxtaanee gis nga àdduna lépp ay jeex nañ ko waxtaanee waxtaanee ko farata leen waxtaanee ko ba trouver terrain d'entente farata la de farata la que doo seet doo seet rek la neex nga teg ko nit ki muy métti ci moom di métti ci ay njabootam du ñu am salaire nga tëj seeni compte ne pat aju fa nga aju du noonu nag leen compte yi tijji leen compte yi ñu waxtaan tijji leen compte yi ñu waxtaan su ngeen tijjiwul compte yi da ngeen ko tijji ah danañ ko tijji moom da ngeen ko tijji waaye su ma sañoon na ngeen tijji ko ñu waxtaan suñu waxtaanee trouver terrain jeex na mais su ngeen ko tëjee it tijji rek ala kulli xaalin tijji rek jël alal ji tijji rek kon donc ngeen waxtaan juboo man daal moom laa gën a gis ci not boo xam ne yaa ngi koy not nit ndax am lu mu bëgg rek aw moom bëgg naa bëgg na politique aw na yoonam waaye yaa xayti mu laa ni nañ ko bàyyi mu doxal rek keneen ku am loo bëgg e, coalition neex la nga coaliser rek àdduna moom noonu la waaye li ma bëgg ku ko bëggul dama lay xeex moom daal doy na waar doy na waar de li ma bëgg ku ko bëggul dama lay xeex te li nga bëgg jaaduwul ah neexul euh, leeral de waaye nag yàlla baax na tudd ci turu yàlla yi nga tuddee ko ni dara nekku ci waaye xam nga jànguñu dara feruñu ijji Euh, duma ko tudd tuddal ko yàlla daf ne wala tanaabisu bil alqaabi bi sa ismul fusuux baadal imaan looloo tax ku ñu soppi sa tur rafetul su wa rafetee ñu bàyyi ko fa li alxuraan wax a tax ay ma ñuq ay ñuux ñuux yooyu du tur yu baax ki tudd loolu dañuy dindi turam sànni ko fale tuddee ko tur bu baax mais mu biinu makiinu taahiru xaahiru jabbaaru dara nekku ci ah déggu leen fa latif latif da ngeen koo gëmul latif amoon na fi mm-hmm. eh, lu ci ne jël sa doom tuddee ko yàlla baax na dara newu ci ñi ko ñi ko maam alaaji moor njamaka ñi mu ko tuddee ca saalum mu bin dund na lu yàgg mëkkin dund na lu yàgg lu ci ne dara nekku ci eh, gaa nag bëgg Bàmba mu ngi ko bëggoon garaawal alaaji bëggoon koo garaawal def ko ngandi laaj ah ay dama am benn laaj yoo xam ne fekk du laaj sax xam nga gaa yi xëy na dënk miin wàll ko nga nit ñi lu ñu miinul boo ko indee rek ñu dof boo ko indee rek ñu dof mais turu yàlla lu ci ne turu yàlla lu ci ne ah kooku ma wax de tuddee na doom yàlla tuddee na ay doomam yàlla mu biin direct mëkkiin direct te mëkkiin ak mu biin ay turu yàlla lañ mu biin mooy lu leer mëkkiin mooy lu dal tuddee na ko ay doomam dara nekku ci dara nekku ci waaw c'est-à-dire ilimaan ji ne du ko tudd fu mu ko teg fan la ko teg dafa gis ci téere ñu ne tuddee yàlla dafa xaraam fan la ko gis su fekkee ne daa raw maam mu bi mu wax fu mu ko rawee alaaji moor njamaka su dee moo ko raw na wax moom fu mu jàngee dara nekku ci cest à ñun ñooy nit ñoo xam ne euh, lu rëy ci ñun dafa bari dafa yomb dangay ngay benn affaire bu tuuti rëy ci ñun ñuy ngandal fii dugal fii génne fii fekk du dara du dara waaw su ko neexee tuddee ko yàlla bu ko neexee tuddee ko yonent bi dara nekku ci bu ko neexee sax bu ko neexee sax tuddee ma ko waaw eh? ah que itam Euh, euh, turandoo baax na bu leen xañ yàlla tur yéen it yéen tuddeewu leen yàlla bëggu leen ko ko tuddee ah, ah. Eh, da ngeen di lànk tuddee yàlla yéen ngeen bàyyi ko mu tuddee ko moom waaw gannaaw yéen lànk ngeen ne du ngeen tuddee yàlla doom bàyyi leen ko mu tuddee ko ay doomam dara nekku ci c'est-à-dire il faut bëri ay tur gisoo yàlla bi nga wax yàlla yàlla yàlla yàlla duñ ko wax ya allah ya yow yàlla mais ñu ngi naan yàlla te yàlla du olof arab la arab bu ñu yàq la arab bu ñu yàq la ya allah yàlla latif ya jabbaar ya ya salaam arab yu ñu yàq la waaw mais tuddee yàlla doom dara nekku ci